te aujourd'hui dans le fonctionnement nu muy demee ah, c'est-à-dire problème la góota lañ dugal Sénégal hmm. mooy mooy arnaque bi gën a garaaw hmm. beneen mbir hmm. Touba lan la ministre bi wax nawet bi du suñu nawet na suñu nawet xaw na xëy na bëgg la daal. waaw nawet bi inondation bi maanaam seen responsabilité newu ci. du seen ñoom ñoom ñu ngi. waaw waaw waaw bëgg xanaa kon ñoom ba ñuy inauguré affaire boobu nekk jam ñaaju du seen du seen yëf. BRT bi tam moom BRT ah? ak BRT bi BRT bi bañ koy dugal xanaa ñoom du seen di woon seen yëf hmm. ba ñuy décorer euh, gaynde sat xanaa ñoom du seen yëf hmm. xanaa état du continuité hmm. ah. état su nekkee continuer kay inondation su amee mbënd bi su amee kay na nga nangu ni yow surtout que waxoon na ko te Cheikh Dieng waxoon na ni su inondation amee Touba Cheikh Tidiane Dièye mooy principal responsable ba pare Cheikh Tidiane Dièye dafa waroon dem foofu sax waaw ma dellu ma information ah. milliards milliards la dépensé dans son ministère nga ni moom mi. Cheikh Tidiane pour ces trois mois a dépensé 20,89 milliards pour lutter contre les inondations semble-t-il paraît-il paraît-il paraît-il vingt milliards fan le dugg fan ko inondation ah. l'état du Sénégal en trois mois a dépassé 1133,8 milliards mhm. la Sénégalais Fin. milliards par par mois par mois 133 133 millions par jour par jour on plus de 200 ah, millions par jour ah, mais eh eh l'on eh, ne corps Ousmane Sonko mo ëpp oto yi topp président. wax naa penalty ba pare baa ngi dem. <laughs> ah waaw léegi. <laughs> yow yow yow mën nga yollee ko. waaw léegi léegi léegi. ah demain. léegi ah, léegi le train de vie. de l' pharaonique. waaw dëgg la de Ousmane Sonko kenn du si wax. waaye mais mais mais mais mais Ousmane Sonko mi train de vie bu bu bu bu grandiose. extraordinaire. mais mais c' est grave ah. déggoonu ma la. Ousmane Sonko mais mais mais demal nga laaj tous les sénégalais la mu da bu ñu gisee cortège wu. mu sell mi mu sell mi dañuy te fii premier ministre xam na moo doon am. waaw moto ci kanam. dëgg la S1 S2. kese loolu lañuy ñuy woowee sécurité 1 ah, ak sécurité d ak otom. daaw am yaa ngi dégg S1 ak S2 loolu lañ doon loolu lañ loolu loolu ku xam la may wax. xam nga ni loolu rek moom moo sa am si président mais kii mu ngi S 18 moom kese de moom kese day ànd ak S 18 ba pare xeet oto yu bakkane man mosuma gis mais oto yoo oto yoo xam ne ah, yow yow deux cent mille essence soo ko taal oto yooyu moom gàtt gàtt moom ba amul deux